ba romb poste à péage bi nga xam ne mooy poste à péage tegul mooy bi ngay mujj romb pour jëm Mbuur soo ko rombee yaa ngi jub ab pont bi nekk sama gannaaw nii képp koo xam ne kii danga nga bëgg a jël yoon bi jëm Ila Touba ñaari yoon yi jubal yooyu ñoo jëm Mbuur yow nga jël seen ndeyjoor tafu ci pont bi boobu ngay jël pour jëm Ila Touba daañ fi teg fan boo xam ne da dafay wane soroor ba ca Touba ko defee ñu mën a jël yoon wi nga xam ne moo la yóbbu ci Ila Touba bi